E, fasiyene andaat ak yeen ci suñu dar tanbihul azkiya tay جيروم juroom ñettelu dars قال الخليفة سيدنا الحاج علي حرادم خليفة مولانا شيخ تيجان رضي الله عنه كيغا خامني مولانا شيخ تيجان رضي الله عنه وحناني wàccuwaay bimu am ci man moom la sayidna ali karamallahu wajhahu am ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama wàccuwaay bimu am ci man moom la sayidina haarun am ci sayidna musa alayhi salaam mu ne maa xallaftu siwa sayidi aliin xarazim kuutaluma kuduut سيدي علي حرادم موخني تمت ينونت صلى الله عليه وسلم وحنا كونكو كي دي سيدي علي حرادم دما ام تي موم مبغيل بو خامني بو اسبيسيال كون كي موي باب الحضرتي التيانيه doonte ka duut moom moo njëkk jàpp tariqa tijaan ndax tariqa tiijan cheikh muhammad al arabi demrawi mooy ki ko njëkk jàpp ci cheikh tijaan radiallahu anhu ba mu ci xalwaam ba ba mu amee fatxu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko tariqa bi ñoom ñaar ñoo nekkoon ci benn bërëb buñ doon defee xalwa cheikh tijaan nekk ci kaw seede damraaw yi nekk ci suuf bañ génnee ci xalwa boobu nag ci la ko Cheikh Tidiane jox tariqa bi kon moom moo njëkk a mos ci tariqa Tidiane moo doon itamit ki daan dox diggante yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Tidiane ci mbir yi nga xam ne Cheikh Tidiane rus na ci jokkoog yonontu bi loolu tamit lu jar a la waaye yi xam ne nag mooy yi gën a am solo ci mbir yi nga xam ne diggante Cheikh Tidiane ak yonontu bi la yooyu lay wax ba pare ne bilaa wasita kon yooyu du am wasatatu ginnaaw yi Sidi Alin Xaraadi moo toog place boobu di dox diggante Cheikh Tidiane radiallahu anhu ak yonantu bi sallallahu alayhi loolu feeñ na ci ay mashahidam lu baree bari moom nag moo ñuy wax kan mooy Cheikh Tidiane yi منينو إن الإمام الهمام قدوة الأنام وحجة الإسلام العارف بالله أبا العباس سيدنا أحمد ابن محمد ابن سالم التجاني الحسني هو القدب المكتوم المعلوم من سيدي علي الحرازم سيدي علي الحرازم دفوحني suñu ilimaan bi nga xam ne sang la di royuwaayu mbindeef fi di layab lislaam maanaam mooy ki représenté l'islam tey ki xam yàlla mooy abal abbas ñu gën ko xam ci ahmad muy doom ci mahmad muy doom ci maanaam muy sët ci salim at tijaani tijaani nag askan ñu leen di askanele la ndax ñeenteelu maamu mawlana cheikh tijaani radiallahu anhu moo jël ci ñoom soxna ñu mujj di leen fa askanale muy qabila bi ñuy wax tijaana alxasani bi li ko indi mooy mawlana cheikh tidiane sët la ci yonantu bi sallallahu alayhi wa ci wàllu doomam bu jigéen doomam bu jigéen boobu mooy sayyidatuna Fatima moom moo jur sayyidna al Hasan kon shurafa u yi nga xam ne ci Cheikh Tidiane lañ aju ñoom ñëpp al yi lañ mu ne kooku mooy xutbu bi xutbu bi nga xam ne al maktum moom lañ nëbb feeñam gu ëpp nag moo ko nëbb wa min siddati zuhuri xafaahu comme ni ko im xafaaw comme ni ko imaamul busayri radiallahu anhu waxee ci hamziyaam ga al maalum mooy kiñ xam kon dafa am e, martaba zahir ak martaba batin martaba zahir yam gi moo feeñ ci ma yi yëpp mazhar boo gis rek moom la waaye nag martaba baatinam lu ñu nëbb la mag tuum la doonte ka sax ñépp ngi janoog moom mais mënuñ koo xam te dëgg dëgg sirru loolu lay firi mooy li nga janoog te xamoo ci moom dara alladi moom mi nga xam ne euh, uxbirat bi akabirul awliya wali yu mag yëpp joxe nañ ci moom xibaar وأشارت إليه جنجننكو وتحدثت في كل مجمع من مجامعها تيتمت وقتاني ننكو تسن بولم أين دجي وتمنى كل واحد منهم أن يكون هو ذلك القلب كأنه كنك تي برام خم خم يو مجيوي ولي يو مبتنا نك قطب بي كالشيخ الأكبر كتي من الشيخ الأكبر سرين بو القطب الأنور قطب الأربي موي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه وذلك لول نك أنه نك موم رأى جسنني جسن مقاما أب مقاما بو ما فوق ما فوقه رأى مقاما ما فوقه إلا مقام النبوة جسن مقام بو خمني درفيتي وكو مقام النبوة وظن أنه له من جرت مقام بموم لنيل يويب جالون نتي دارسي باسي موي ابن عربي الحاتمي لم دون ووتا سي بوبوم وتا آه، من وطم أنت به نفسه مدلل تي خلم غاية الإطمئنان دايب دل دلو بخل فبينما هو كذلك بمنك نكتي لولو جم جم جم جم جم بوبو ne yegg na ci maqaama foo xam ne nubuwatu rekk moo ko sut ida bi munaadin yunaadi ci la benn wootekat daal di koy woo ne ko maanaam haatif la dégg haatif bi ne ko laysa laka ma danant wa tamannayt li ngay njortaka mébét duhut pour yow innama huwa li waliyin min awliyaa yi waaye mar maqaama boobu ngay njort ci yow te di ko mébét duut pour yow waaye pour benn waliyu la ci samay waliyu fi axiri zamaani ci mujj ak jamono laysa waliyun akrama ala minhu yàlla bindut waliyu bu ko gën a tedd qaala mu wax moom ibnu arabi alxaatimi fa inda dalik sallamtu l ila mawlaaha ba ma déggee xaatif bi rek laa delloo mbir yépp boroomam ولطالما جلت في الغيوب أكيج مي ورت غيبياتي ببصيرتي جسمك بصيرة سمك جس جس جس جس خل لأطلع جرمس سيد عليه في مقام بوب ولا برم مقام بوب على مقامه أك مقام ونسبه أك أسكنم وبلده أك دكم واسمه أك ترم وكيف يكون حاله أكتمت أي مرم نميمل فما أطلعني الله على شيء من ذلك لولو نكي الله ونود ما جدارا ولا شممت له رائحة أصلا تأيتمت آه، خنجو مسخ أكتم أما سيدنا رضي الله عنه مولانا علي حرازم نه أما نقص سنجبير مولانا شفتيان رضي الله عنه فقال ممدفوهني قال لي سيد الوجود سيد الوجود صلى الله عليه وسلم من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم مونم بأنني القدب المكتوم من ما قدب المكتوم منه وحجوجنا تكيتي يرون تبي صلى الله عليه وسلم إلي نوشي من مشافهة تكتنو من أملون وحتي جيم نمدكو يمدكو ديكي سما نوب يقظتان تيجي ولا منا من دور تنارو فقلت من ما وحكوني قيا سيدي يو سما سنجبي يننتبي صلى الله عليه وسلم وما معنى المكتوم لن موي معنى مكتوم قال رضي الله عنه رضي الله عنه مما وانا شخص جاني ولا ولا بوك سيد علي الحرادي مونيكو يو سما سانغبي لن موي مكتوم موني قال رضي الله عنه مولانا شتي جان رضي الله عنه نه هو الذي آه، علم بمراتب الأولياء علم بمراتب الأولياء وهذا آه، كل ما عند الله من الأسرار واحتوى على جميعها من موي كيغا خامني خامنا مرتبه كولو يالاي تاي تاميت بيغنا لب لو خامني نيك نا تي يالا تي اي مبوت كل ما عند الله من الأسرار واحتوى على جميعها لب نك مبكو ومغا ديغ بانيس ديكو واي فنن نكو كتيم تفي حضرات الحق ليس سوى المختار يدريك لا انس ولا ملك لكن تجليت للأكوان أجمعها ولا جملتها إذ أنت أنت فمنك الفلك والفلك واو ne nëbbeef nañ la ci xadratul xaq yi ku dul muxtaar mënula laa xam nit du la xam jinne du la xam waaye nag yàlla feeñe na la ci biir mbindeef yi ba ñëpp xam la ba ñépp di la gis bokk mun nañ laa ñàkk xam ndax yow yaay yow yaay moom is anta anta yow a fulku bi maanaam géej gi ak fëlëg bi jéeri ji lépp ci yow la tukkee kon loolu yi tamit euh, lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la euh, euh, Baay wax na ni Cheikh an lim làq ci mbootam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mbindeef ak yàlla làqut ko kon loolu day dëggal li nga xam ne Cheikh Tidiane wax na ko ci boppam te yonent bi sallallahu alayhi wa wax ko ko Baay wax na ci diwaanu Tuhfat Ataa'ibil Anfaas ne e, mu ne Cheikh Tidiane wa huwa ruhul ilahi wa huwa habibullahi amri ma haza haza arimu mu ne Cheikh Tidiane mooy ruhul ilahi mooy ruuxoog yàlla gi wa huwa habibullahi mooy soppeb yàlla bi maanaam Isa ba mu taxawee moom la muy ruuxullah Habibullah yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawee moom la mu ne amri giñ naa ci sama dund ma xaaza haza arimu lii Cheikh Tidiane làq ci ay mboota ki ngëneel amul mbindeef bu ko mas a làq mu ne wa akbar min min haza الشيخ أمن الأبلول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينجب صلى الله عليه وسلم وحنا إن لله سبحانه وتعالى مئة خلق ولا خلق ما يقول إن لله سبحانه وتعالى مئة خلق يا الله أمنا نتتيميري جيكو من تخلق بواحد منها أدخله الجنة الله الجنة كيف جيكو بن جيكو تي جيكو يو يال دوغل كو وما اجتمعت في بني في نبي ولا ولي الا في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لول نك داجي ووت بن يونت ولا بن ولي لودو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ولا في في الاقطاب من بعده الا في الحجه العظمى تلول يتام داجي ووت بن قطب سي غيناوم لودوت سي حجه مغي موي ابن عربي الحاتمي فبه ختم الاقطاب ci moom lañ kaste xutbu yi allazina ñi nga xam ne ijtamaat fihim axlaaqul uluhiya ñoom ñi nga xam ne jikkoy yàlla yi ci ñoom la daje ñi nga xam ne kojag uluhiyatu la ak rububiyatu wa hadihi al axlaaq yi la jikko nag laa yaarifuha illa man zaqaha kenn du ko xam lu duwut ku ko mos wala tudraku bil wasfi munuñ ko melal nit moom xam ko moo tax ci njëlbeenu téere bi moo waxoon ni خدمية موم جانج تيري تاخد نغا خامكو واي زوقو نغا كوي خامي ولقد قال لي سيد سيدنا رضي الله عنه سيحسيد علي الحراضي منه سيدنا رضي الله عنه احنا منه ما كشف الله لأحد من الأنبياء والأولياء عن بواطنها وأسرارها وعلومها وخباياها إلا لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم mu ne yàlla wuññilul kenn ci yonantu yi wala wëliyu yi baatinu xutbaaniya googu ak i mbootam ak i xam-xamam ak lim làq lu duwut ku duwut sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa ana maahu fi zalika hamdan wa sukran te man maa ngi ci ànd ak moom hamdan di sant wa sukran di delloo njukkal lillahi ñel yàlla wa amma gayruna ku duwul ñun ñaar fa yaarifu dawahiruha ولا ظواهرها موم ظاهر برك لا يخم ومعنى المكتوم معنى مكتوم نك الذي ممكن يخم كتمه الله عن جميع خلقه على نبنكم بولم بن فمي حتى الملائكة والنبيين بشي ملائكة يكونون إلا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ومدى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فإنه علم به وبحاله خمنا كان موي مكتوم خمنا يتميت حالا أه، شيخ سيدي علي الحرازي من باتاي وقال رضي الله عنه من مولانا رضي الله عنه ان الفيود التي تفيد من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاه ذوات الانبياء والرسل عليه والرسل عليهم الصلاه والسلام mu ne bëbb yi nga xam ne ñooy bëbbee ci jëmmi yonant mi sallallahu alayhi wa sallam jëmmi yonantu yi ñi ñu solog ñi ñu yónni ñoo koy gàttandu wa ma faada wa baraza min zawati al anbiya wa rusul tatalaqaahu zaati lépp loo xam ne bëbbee na feeñe na tukkee na ci jëmmi yonantu yooyu ñi ñu solog ñi ñu yónni sama jëmm ji moo koy gàttandu wa min nii yastamiddu jami al xalaaq ci man la mboolem mbindee fi di tëbboo bàyyi wax na feneen ne mu middun wa gayru mustamiddin wa man yaqis amiran bi mamurin alayhi ritaaw mu ne Cheikh Tidiane mooy mu bi mooy tëbbe te kenn tëbb ko kuy jéema nattale nag surgaak njaatige yow moomu da nga dof moo tax ومني يستمد جميع الخلق من أول الوجود إلى يوم القيامة نجل بينك نك تفكي بتي يوم القيامة وبينه وبين سيد الوجود دقنت مك سيد الوجود نك صلى الله عليه وسلم علوم أي خم خم دخنا يو خم يأخذها منه بلا واسطة يو خم ندفكو يجلي موم تلو أمول واسطة أمول بين دقله ولم يكن لأحد بها علم ولا شعور ولا علم ولا شعور كن أمرتي خم خم كن ديك أم يك يك إلا إلا الله عز وجل كل برام تبارك وتعالى يلا الله خمني موي أجي ما جتكوي وهو الذي قال بتي ومعنا شخص موح بتين لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا أمول بن ولي بوينان ولا موينان دلالو دهوت ci suñu géej gi ci la naane ci lay nàndale min nashatil aalam ba alam bi soso ila nafq fi sur ba kérok ñu wal boftu bi wa huwa alladhi qala batay tey mo wax ni جميع الأولياء يدخلون زمرتنا ويتمسكون بطريقتنا ويأخذون أورادنا من أول الوجود إلى يوم القيامة mboolem wël wi dinañ bokk ci suñ kuréel gi jàpp suñu yoon wi ba pare jàpp suñuy wird loolu nag mi ngi tàmbalee ci awwalil wujud njëlbeen ak nekk teef ila yawm al qiyaama wa inna al imaam al mahdi yaxudu anna te imaamul dina jël ci ñun ida qaama axiru zaman su ñëwee ci mujj ak jamono wa baada mamatina wa intiqaalina min daari dunya ila al axira loolu nag day nekk ginnaaw ba ñu faatoo toxaloo ci kër àdduna jëm ci kërëg al لأنه من جملة الأولياء ندخ موم مهدي yu ci wali وهو الذي قال بتيم مولانا الشيخ تجان رضي الله عنه وحني أنا ذنب الجوزاء ينحل كل ما قاربني من الأولياء الصغار والكبار من موم موي بكار بيني تودي جوزاء day fecceeku saa yoo xamee ni rek wali yu mag yi wala yu ndaw yi jege nañ ko wa huwa alladi qaal ba tey moom moo wax ni aataani allahu wirdan yusamma jawharatul kamal yàlla jox na ma wird bi ñu tuddee jawharatul kamal ulaqinuhu ashaabi naa ko samay taalibe yugnihim an ziyarati kulli waliyin mu doy leen walis ziyaara ji bépp wali wi illa sayidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam moom des yonontu bi sallallahu alayhi wa sallam wal anbiyaawu kazalik ak yonontu yi tamit wa inna kulla man dakarahu isnatay achara marra képp ku ko jàng fukki yoon ak ñaar ala taharatin tin ci laab sawban wa badanan ci yéreg jëmm wa makaanan ak bërëb loolu ñeel na wa qaala haadihi bu ko jàngee ba pare ne haadihi hadiyatun laka ya rasulallah li hadiya la bu ma la may yow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fa kaannama zaarahu fi rawdatihi sharif sallallahu alayhi wa sallam fay mel ni rek ziyaare ji na ko ci rawdaam bu tedd boobu moom sallallahu alayhi wa sallam wa kaannama zaara awliya allahi salihin min awali lwujudi ila yawm alqiyama dafa mel ni tamit ziyaare ji na waliyu yàlla yi yëpp lu ko dalee ci njëlbeen ak wujud gi ba yawm alqiyama وهو الذي قال فتيم موحني أصحابنا لا يدخلون حفرة المحشر مع الناس ولا يرون مشقة ولا محنة من تغميد أعينهم إلى الاستقرار في عليين في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسوني أننا سوني طالبة duñ dugg ci pax moomu nga xam ne lañuy fànge maanaam duñ leen fàng ñu ànd ak nit ñi te itam duñ yëg benn coono wala benn métti loolu min tax mii di ayunihim mu ngi tàmbalee suñu gëmmee seeni bët ila istiqraar fi illiyin ba keroog ñuy sax ci illiyin maanaam buñ génnee àdduna ba ba ñuy sax ci illiyin fi jawaazi Mustafa sallallahu alayhi wa sallama ci wala fi jiwaar yi laa bëgg a wax ci ñu nekk ay dëkkaale yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alladi qaal ba tey moom moo wax قال رضي الله عنه رضي الله عنه وهنني إذا كان الناس في الموقف ينادي مناد في أهل الموقف من بو نيني موقف بما مانام تي بيالا بي يالا دي نيني هاتف داي موقف بي يوم القيامة إيه هذا إمامكم الذي كان ممدكم من نشأة العالم إلى الآن كي موي سين إليمان بيغا خامني دون تب دبي با عالم بسوسو با إلى يومنا هذا آه إلى الآن بتي وهو الذي قال أعطاني الله في السبع مثاني ما لم يعطيه لأحد غيري إلا الأنبياء عليهم السلام يا الله جهنم تي سبع المثاني مو يا القرآن مو مو فاتحة لو خبني مسكو جوخ كنن كدول يرنتي عليهم السلام هو الذي قال موحبتي أعطاني الله في الجنة مقام أربعين نبيا جوخ نن مجال دينا مقام اجنين فكيونت وهو الذي قال بتي كل الطرق تدخل في طريقة الإمام الشاذلي طريقة يب دينا دقو تبير طريقة الإمام الشاذلي إلا طريقتنا بم دسون طريقة نينا كلو تح لأنها طريقة محمدية نح طريقة لبو خمني كجك محمدية تولا إبراهيمية تولا حنفية تولا لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى منه إلينا صلى الله عليه وسلم أعطى جهنكم منهم تكيتموم إلينا جمتين وقال لي بتاي من وحنا مني لا يسلك شيء إلا على يدي درد صوب لدوت سما الله عليه صوبه هو صلى الله عليه وسلم الذي رباني مؤمن صلى الله عليه وسلم يا قبل مؤمير وسلك بي صوب ما حتى بلغ بي ما بلغ بم يجك من فيم يجك من هو الذي قال ويكوهني لو بحت بما بما علمه علمه الله لي لاجمع اهل العرفان على قتلي ثم فينلون لما يلا قمل ني ووتن دانيو خم يالا نوي داجي فور رايما هو الذي قال بتيم مو صاحبي لا تاكله النار ولو قتل سبعين روحا اذا تاب بعدها من سما طالبي safara du ko lek doonte ka rey na juróom ñaar fukki ruuxu waye nak condition bi moy su tuubee ginnaw bakaram yoy wa huwa alladhi qala moo wax laysa li ahadin min al awliya an yudxila kaafata ashaabihi aljannat bi gayri hisabin wala iqaab walaw camilu min addunubi ma camilu wa balagu ma balagu min almaasi illa ana waxdi amul kenn ci wali yi ku mën jàllale ay taalibeem aljana ci lu dul xisaab ak iqaab doonte kat def nañ ci bàkkaar liñ def yëpp yegg ci ci dayoo ci mooy yàlla kuduwut man dong wa amma saa'irul awliyaa mu ne ñi ci des nag fa yudxiluuna aljannata asxaabahum baada alxisaabi balil mu bal wal munaqas ñoom dinañ dugal seeni taalibe aljana de waaye ginnaaw bañ leen xisaabee ba pare discuter ak ñoom wa huwa qaal ba wax ni ataani allahu shafaatan fi casri min yowmi wiladati wa wadci min batni ummi ila yowmi ila yowmi mamaati mu ne yàlla tabaraka wa taala jox na ma ma doon ab intervenant maanaam kii euh, tinu ci sama jamono ba ma juddoo ci ci sama nday euh, maanaam ba ma ba ba ba ma juddoo من يوم ولادتي ووضعي من بطن أمي بس بينا خمني جلا جدو جسما إياي إلى إلى يوم مماتي بكرك ما يجنادنا وهو الذي قال بتأي وحني قال لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وحنما أنت من الآمنين يو تيني نين وولو وكل من أحبك من الآمنين كل بغي تمت لبوك wa kullu man axada wirdana fo huwa muharrarun min annaari wa walidahu wa zurriyatuhu wa azwajuhu ne képp koo xam ne jàpp nga suñu wirdu yi moom ak ay walid ay ay ñaari waajuram ak njabootam ak i soxnaam ñoom ñëpp muharrarun min annaar ñuñ goral lañ ci safara su fekkente ne nag ñu ngi ci yoonu njub وهو الذي قال طريقتنا هذه المحمدية لا ينبغي لنا إلا التفرد بها كي وحني سنو طريقة بي موي طريقة المحمدية التجانية إيه داري يالو تيموم لدو التفرد مانام بيرو كان دوكو ديال بولكوك لنن وكل الطرق تدخل عليها فتبطلها طرق يبدني dugg maanaam dañuy bëgg a fekkanteeg moom waaye daf leen di màbb wa taabiuha yarkabu ala kulli nga xam ne mooy taabi bi mooy aji kaste gi kooku moom day war mboolem tampon wala yaxmilu taabiuna gayra suñu tampon bi moom moom dong moom mooñu ñu mën a bàyyi ñu jàll maanaam mooy suñu laissez-passer wa huwa qaal ba tey moo wax ni man taraka wirdan من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه أمنه الله في الدنيا والآخرة كيبكو باي بين ويرد شي ويرد سرين سي في نيو جاب سي سوني بوس ا أه، مو نيكوكو يالا كوي سيكيريزي سي ادنا كالاخرة وإن كل من تمسك بطريقتنا كيب كو جاب طريقة وانتقل إلى غيرها متقدم تبنن طرده الله من حضرتي يالدف كوي ركي تي بي ام بي ولا يفلح تدو تخي وتحل به المصائب دنيا واخرى اي مصيبه دينا دال تي كاوم تي ادنا كالاخره ولا ينفعه غيرنا من الاولياء تبو كولول دالاي كينن كودو نون مونوت كو جيرين ابدا بفاو وهذا بوعد صادق من لول نك تي ديغل بو دغول من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم توكي تي يونس صلى الله عليه وسلم الذي قال بتي مولانا الشيخ تجان موح كل أعمال الناس ذهبت مجانا وخسارة إلا صاحب الفاتح الخاتم لما أولاك من الدون دون نيب لم ننتي بات بامدس نيغا خامني نو صح دي جولي تيونون تبي صلى الله عليه وسلم تي صلاة الفاتح لما أولاك فإنه فاض بالربح دنيا وأخرى كنا كتي لولو غانينا أدناك الآخرة ولا يشتغل بما عمره بي بي بي ولا يشتغل بها عمره illa said amul kenn ku koy yittewoo ngir dundam kuduut ki texe wa inna al marra al bi arbaati miati gazwa benn peru salat fatihi rek mën naa tolloog yoolu ñeenti téeméeri xare wa kullu gazwatin bi arbaati xujja xare yooyu nag benn bu ci nekk mi ngi tolloog ñeenti téeméeri xujja إيه، وإن المرة الواحدة منها بفدية من النار جانك بن يون من لا جخ تسفر والذي سمعته من سيدنا رضي الله عنه سيحسد علي الحرازي من لما ديقناك تسون سرين برضي الله عنه إيه، أنه قال من ذكرها مرة يغفر الله ذنوبه ولو كان عمره مئة ألف عام mu nekk ku ko jàng benn yoon yàlla da koy jéggal ay bàkkaaram donte ka am na téeméeri junni at wa in zakaraha yuti lahu sawaab su ko jàngee yàlla jox ko yool yoolu kulli daakirin bépp jàngkat bépp sikarkat boo xam ne yazkurullaha fil kawni dafay sikar yàlla ci kawni bi bi adaafin mudaafa ci ful goo xam ne dañ koy fulandi qalla dalika aw kasur moo xam mu néew wala mu bëri وقال البعد إن ينني وحن ويكفي كما ودعنا في هذه الصحيفة دينا لردوي يينا خمنا تدونا إن كوشي كرامة شيخ تجان تيلة باز على قلق وعجلة تتانجيك جاكري وإن أردت البحث والتطوير سوشي بغي قص ولنغيات فعليك بمناقب سيدنا دلل تي مناقب سيدنا رضي الله عنه وكلامه الفاتح لما وكلامه عن الفاتح لما ولقت لم دون وخ تي الفاتح لما أغلق تي جواهر المعاني وانظر رحمك الله إلى إلى هذه المنح العظيمة بين خلال لي يالنا سيد علي الحرازي من يقول لي يالنا لي على يرم تي مي مجي والجواهر النفيسة ونام ورس يسلي كيف يلتفت إلى غيرها من أعطيت له wa tamassaka biha kiñ ko jox bam jàpp ko nan la mën a dëddoo lii di ko dummooyu wa kayfa yatmainu al qalb biduniha nan la xel mënee dal maanaam xel xel nan la mënee dal biduniha wëlees moom